ñu ngi lay fay Babacar di di nuyu Sénégalais yëpp rawatina sunu sunu ay mbokk muy waa Médina Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire Gibraltar Rebeuss Grand Dakar xam nga town bi yëpp waa Ngor Wakaam Yoff ak fukki pénc ñaar yi si Ndakaaru yëpp ñu nuyu supporter fépp fu supporter écurie nekk. Médina Colobane Gueule Tapée maanaam Ndakaaru génn lan maanaam mbooloo mi boo ko gisee kilifa yëpp génn mbër yi nga bokkale gi yépp génn lan la lu xew sa diggante ak ñoom sa diggante ak waa Ndakaaru waaw mooy li fi tàmm am lii du gan fii Médina bu kenn jugee wala Ndakaaru bu kenn jógee rek ñëpp dañuy jug ànd ak yow loolu lañ doon defal grand bi loolu lañ ma defal tey te tamit comme d'habitude rek liñ leen tàmmal rek ci loolu lañu teg suñu tànk te loolu du deñ te ba samedi incha allah loolu ñëpp dinañ ko xam. écrit bi dañ bi nekk ak sunu ay mag. ñu ku si nekk sa devoir nga def ko si ñun. il est l'heure nag pour ñu wane suñu bopp. te loolu samedi la war a commencé incha allah. lii maanaam suñ ko gisee est-ce que du nekk pression si mbër mu ndaw kuñ jàppee ne mbër mu ndaw la population bu toll nii ak mbooloo bu toll nii xëy topp ci sa ginnaaw jëmale la ci bés bu mag. waaw pression moom ñun dañ koy dégg mais xamuñu fan la ne man gëwuma ne pression lu existé man yëguma dara man lépp lu may jëf si sama àdduna damay jàpp sama yëf la dama koy dem jëli te le jour ji incha léegi mu ñëw dina ñëw def yëfu boy town gagné dem ñibbi ñibbi si biir incha allah. ngay bëri ak mbër moo xam ne démb dañ ko laaj. ci diggante Fass ak Thiaroye nee na li metti li mas sa metti seen diggante ci yéen lay ci maanaam lu metti daal ci yéen lay dal parce que dóor mu daanu sax def nañ leen waaw xam nga moom chaque jour rek day wax damay gis buy joxe exemple toujours muy joxe si sunu papa papa kan rahmatullahi alayhi ñu ngi koy ñaanal bi mu tëdd yàlla yeesal yërmande ci kawam wax ji du foofu base bi dañ koy wàcce ba ñun li ñu fekkee muy moom muy man li ñu fekkee Tafa Gueye Xaadim ñëpp fii lañ ko fekkee nañ ko stade Demba Diop. Gris Bordeaux dafa yenu Xarim Ndiaye numéro 2 ba ci kaw dóor ci suuf Gris Bordeaux dafa dóor bàyyi ma njoon bàyyi ko ci géew gi muy daan yooyu Sénégal yëpp fekkee nañ ko kon na bàyyi wax boobu na ñëw rek dëggal boppam te ñu bàyyi sunu papa yi te respecté leen jox leen cër loolu mooy devoir. loolu mooy tamit dañu gis lu doy waar. Hmm. promoteur bi tëgg làmbam andi balance am ngeen pesé wu. moom mu posé wu yow nga lànk gandaar ne doo posé wu lu tax ragal ko la wala lu xew. waaw loolu loolu du lu am sax xorom boo seetee. parce que loolu ku ko bëgg a def débat yaa ko bëgg def débat. waaye ñun ku ñu xam xam ne si kilifteef la ñuy dox. ci kilifteef la ñuy dox da loolu du woon dara da et dañ doon dégg suñu ay ancien lutteur ku si mel ni Yaxya Diop li ni ñu ngi koy nuyu de passage mu naan làmb sutura la. li ma la wax rek mooy mënoon naa yéeg foofu tey. ñu gis bopp waa boo xamante ne moom moom sax day porte malade samedi ah. loolu rek laa doon bañ mais loolu séeréer yee cat rek laa doon bañ mais mais moom bu samedi jotee ah, ah. dinañ xam ndax loolu ragal la woon wala déet porte malade ngay wax waaye moom li mu wax moom maanaam combat bi moom luy gaaw lay doon xeex bi bëri bi lu mu ci mën a doon rek du ngeen fa yàgg yéen ñaar waaw parce que xam na ma moo tax parce que xam na ma moo tax xam nga yaa ngi déglu mi ngi changé communication le commencement bi cons la doon wax dem na ba ci biir xam ne kii mënatuma ko cons nee na day gaaw léegi nag man maa koy yàggal man. mais ñu ngi gis ñu ngi gis nga soog sa mag Gris Bordeaux xeex ak moom xeex bu yàgg da nga nar a xeex ak moom wala nu mu demee. waaw yow xeex mooy lu mënta ñàkk. combat bii moom foog mën ak moom ñu jëflante ndax combat la boo xam nit ñi dañ ko xaar très longtemps dañ ko war a jëflante ba mu tàng jër. loolu moo jaadu. sa sa grand frère ne yooyu yëpp amul importance en tout cas écurie Fass ñi fi nekkoon ñoo fi ne suñu ay mag ñu ngi fi ñun ñu ngi seen ginnaaw jusqu'à la mort loolu rek moo fi am mais relève moom. kenn xamul ëllëg luy am quoi. mais man damay relancer ci ma daar waxee maanaam xeex bi parce que man dama mas a adversaire yi ko woo ci xeex yëpp bañ demee ci géew ba Reug Reug dominé leen ci xeex ba pare door leen a daal. waaw loolu samedi xam samedi mooy trois la. loolu yàggatul. ñu xol en tout cas dal man fu mu ne dina ko loxati. bu mu taxaw ci géew gi man ma fekk ko. ndax am na looy ci mom non ñun samay kilifa waxuñu ma loolu. nenañ ma ya wara dem ya wara jëm ya wara gagné inshallah rabbi tay dama gis mbiru Fass yeb génn ba pa sok manam kën desul loolu tamit lu mu yokk ci yow. wa loolu moo mës a am man mu so gis man bu ma xewlee ñëppay ñëw. parce que loolu laay dundal ñëpp ñëpp suma ay mag ñii suma ay morom ñii suma ay rakk loolu laa mos a doxanteeg ñoom te loolu mooy am te c'est normal. am nga looy moytu waxuñu ma loolu nee nañ maa war a attaqué maa war a koñe maa war a gagné. waaw ma indil leen trophée quel que soit alpha loolu laa ñëw fi mu de confiance. man xaw loolu man ku ma wax. li ma mën laay def ku ma waxul li ma mën laay def te maximum possible mooy ma wàcc samay tànk dox ci kawam fu mu fekk fu mu nekk ma fekk ko. kon yow lépp kon pour yow. loolu loolu loolu yéen sax xam ngeen ko. attaqué cogné gagné. xamuñu lenn dañuy posé question. dama ne la dama ne la la daan xew mooy xew fu mu mu teggee tànkam incha allah fu mu nekk ñu fekk ko ko. bu dawul bu sax. Ah? bu daw waaw di gërëm nag di gërëm. non bala ngaa gërëm parce que dañu dégg ay bi bu ko daan ci yéen. maanaam moo koy ubbil porte VIP fii sax ñoom mag ñoom Gris Bordeaux nekk ak ñoom Eumeu Sène ak ñooñu est ce que loolu da nga moom dañuy dama ñëw si laam pour daan ñëpp. li jëntiwuma VIP li jëntiwuma keneen bu ma ko daanee sax ñu wàcceewaat ma ma wàccaat damaa ñëw pour daan ñëpp ñëpp loolu moo ma indi maa ngi nuyu bu baax autorité town bi rawatina Cheikh Tidiane Ba eh, Messi waaw DG Messi gis nañ bu baax te sas nañ ko billet yi ñu soxlawuñ dara dañu bëgg pour population wu Médina Fass Colobane Gueule Tapée bi monsieur le maire Bamba Fall dañu bëgg ñu jàppale ak Seydou Gueye yuusu Ndour Cheikh Seck bépp autorité ah, Ousmane Ndoye xam nga ak Tafa Diop ñëpp ñu ngi leen di woo pour ñu génnee waa Médina ñu ñëw samedi incha allah soutenir seen doom ñu ñëw ñu ñëw gagné. absence Tapha mu ñëw mi ngi France. non mu ngi ñëw moom waxuñu ñëw absence bi la ñuy laaj. Tapha Gueye combat presque huit mois la. sept mois mi ngi ak man. weeru koor gi donc la dem France fii amul benn kilifa suma président écrit Abbas Ndoye mention spéciale Youssou Lakoum père Momar Ndiaye ah grand père père Thierno Dramé aw ma seen pay gis naa bu baax a baax Abdou Naar Meng Yoff di nuyu bu baax a baax a baax DG Cosset grand Modou Ndione ak séeréer yëpp nag suñu mbokk séeréer yi fu waay nekk ñu ngi lay wax ñu ngi sàkk ci yow ñaan rawatina waa Joal waa Bassoul gis naa seen taxawaay bu baax. bésu combat ba mën nañu xaar retrouvailles équipe Fass yëpp ci ci stade Fass musu ñoo tas ba retrouvailles yéen ñu sonal lañ mais Fass musu ñoo tas ba retrouvailles di am lii moo mës a am